senegal ci yoon yi ay l'accident yu bëri muy waral ay doomaadama yu bëri ñàkk seen bakken lii nag moo waral kuréel gi ñu duppee Fadel prévention taxaw temm ngir yee wi waxtaan ak ñoom ba nag dem Touba àgg fa daw ndànk ci dal yaakaar ñu yëkkatu suñuy kàddu jëmee ko ci defar kon nag lépp luy tax ñu ñëw ci jàmm dellu jàmm daawaat ñu def ko ñi jiit nag mooy safoor si ñu ubbi seeni xol yaatal seeni dënn dox ndànk bañ xëccoo bañ a biijoo bañ a jëkkante sàmmoonteeg code de la route di wax ci turu sëñ Moustapha mu Cheikh Mouhamed Lamine mu jëm ci euh, wàllum dawal meeg tëli bi ngeen koy gëttandoo màggal gi di ko waajale màggal gi muy association Fadal prévation euh, sëriñ bi nag nee na mi ngi euh, dagaan ak ñaan mboolem kuy dégg kàddoom foo mën nekk ñu ànd ak ob yar akuk dal akuk teey bañ ngir ak bañ yàkkamti ndax accident moom mm, ginnaaw dogal bi yàlla dafa am lu koy waral mooy mal conduire dawal bu bu ñaaw akuk yàkkamti akuk ak jaar foofu te jaar kon nag nee na mi ngi soññ mbokki chauffeur yi nga xam ne ñooy roto yi di dem ak dikk di bàyyi ci e, gox yu wute jëm si Touba di yor ay nit daw ko daw ko ñëw ñu bàyyi xel bu baax a baax te xam ne e, bu ñu yorooto ànd ak ay nit e, yoratuñ seen bopp dong dañoo yor yeneen bakkan kon nag daw responsabilité la boo xam ne Euh, képp ku yor volant di dawal rek war nga euh, boo respecté wu sa oto sax ngir mu bañ a yàqu nga ngir dara war la ci war ngaa respecté nit ñi nga wa ñi ngi àndal. ni ngeen ko tuddee rek ab junj boo xam ne daanaka lépp mën na cee waxtaan lépp mën na cee yem muy faadal prévention ji ngeen ko tuddee bu nee tàcc nga ni tekk bu ne yànk nga ni yol ak nikk jàkk ja te ñi fi ñëw nag kenn doon fi indi lul oto yi ak safoo kon sëfoor yi nag doxin bi dañ ko war a xool bu baax a baax a baax ba seetloo atum ren nii lu ci xew bari na lool te ay yoo xam ne lu ci nekk ñàkk a sàmmonteeg code de lam la digal nga defe ko noonu moo sabab loolu waaye nag ñi ñuy yàpp dañoo war a xam ñan lañ waaye xam nga tey jii yàkkamti ndax nit mënut a yàkkamti ba wërsëgam mu jël lu wërsëgam du am ci kaw suuf kon nag ñu ngi soññee soññee boo xam ni adduna sëpp dañ koy maasaleen ci bis màggal gi ñu dëgmal nga xam ne amul lu moom noo wootee taalibe Sëriñ Tuubaa yi jóg dina wuy si nag dana nu fekk ci jàmm nu ànd ak ñoom màggalu màggal Sëriñ Tuubaa gi jàmm dellu ci jàmm te loolu la koy maye nag mooy ak dal ak sàmmonte ak xam ñi nga yor ñooy ñan ndax ay doomu aadama bakkanu doomu aadama dafa diis lool te euh, saa bu demee te sababoo ci nit euh, boo mun njëgalu yàlla loolu la mën na ko caa fekk ëllëg di sant itam ci seen jéego yi ngeen ñëw yéen waa Fadal prévention ak sëñ Fallou ni mu ko ñore woon ba mu génne code de la route boppam te moom mu xamoon lor ji ci war a jóge te aw làmmiñam barkeel dëppoo kun fayekoon nga xam ne lu mu wax rek moom di di di di ñaan ci ñaanuk si Mahamadul Bachir gi mu ñaanoon ci extra yi bismil muhaymini mujriha bi xudratihi subhanahu wa mursiha ala subla salaami bi idnillahi salikatan tabaraka allahu fi xallin wa murtaxali fa allahu yakla una fiha wa yasimuha min almaatibi fii sahlin wa fii jabali ñaanu accident la moo taxoon mu ko kon na ko ñëpp yi barkeeloo boo ko yoree benn loxo wala ngay socc mbaa ngay wax téléphone mbaa ngay geesu mbaa ngay xool leneen kon nag yéen sama bokki safoor yi na xam ne métier mu noobal ngeen yor bu leen seen bopp bu leen foyee seen bopp ndaxa ruu yi leen yàlla dénk ngeen war koy sëf di ko yóbbu ci ay barab xamu leen ruu yooyu lana ci ne ak ñana ci ne te ku nee ngi ci da xëy ba ngoon ñi ngay sëf xamoo ay jinne lañ xamoo ay wàllu yu lañ xamoo lu ñu na leen gisee rek nga leen di sëfe te mën nga cee wax nit lu tuuti rek sa mépp yàqu ci ba faw mën nga cee teral nit it nga ju tuuti yég ko rek fonk ko naxanteeg moom rek mu defar sa mbir mépp mu def ci mu dox ci defar moo tax bis boo xëyee rek koo gis koo gis rek jàppal ne tey jii ci kii li sa mbir nar a defaroo waaye it na tiit ne ah kii de bu ma tey ma téyut mën naa cee dox yàqu ba faaw kon ñaar ñooñu rek fi kii mën nga cee defaroo kii mën nga cee yàqoo ñaar ñooñu rek ba leen bàyyee xel doo tooñ kenn doo ñàkk kenn teggin waaye yow chauffeur bi nag xoolal ña jógee Tamba Kédougou ña jógee Fuuta ña jógee Kajoor ak Bawol bàyyi seen i kër bàyyi seen i itte bàyyi seen i liggéey ñëw ngir santale sëñ Tuubaa boromam bii ci dëkkam bii di xool noo no no noo yore nit ñi indi leen ci dëkkam bii ba xam yelloo naag ni mu ko bëggeem déet te nag ma ngi lay nekk de ndax ëllëg nag na nga xam ne sa jëf dara doyu la fa moom rek nga fa yaakaar te boo ko fa gisul rek dara jëru ko léegi nag xamal ne mbooloo mi nga yor kenn nga ci ñoom boo leen teralee naxanteeg ñoom boo liggéey boo gisee sëñ Tuubaa doo am kersa te dana la xettil dana la ram mm-hmm. wala boo boo leen doyee dalee nag wala nga tooñ leen wala nga bëcc ngil leen loolu yaag sëñ bee du yaag ñoom kon nag loolu rek war naa tax ñëpp maase di dox ndànk di def ndànk li may ñaan rek li may ñaan sëfër yëpp ñu maase ci delloo siwaat seenum xel te bañ a yàkkamti seen addina te xam ne doomu aadama euh, dafa am kon alal ji ngay wut ci ñoom bu mu tax nga jox leen nga xañ leen seen àq waaw respecté leen te fonk leen te xam ne gani sëñ Tuubaa nga yor sàmm leen ba jox ba jafal leen teg leen ci loxol sëñ Tuubaa loolu maa ngi ko ñaan safar yëpp màggal gi luñ luñ góorgóorlu woon ñu yokk ko fexe ba zéro accident am waaw zéro benn accident bañ am loolu nag denka dénkaane la diggante taalibe ak morom ma. moo tax mu am matuwaay yoo xam ne wax res na koo jël ba sunu borom dimbali ñu matuwaay yooyu nag ba ci jiitu moo ñu respecté lii di code de la route ñu sàmmoonte ak code de la route bu ñu nee code mooy li nga xam ne yoon tëral na ko. ci wate yi ni nga xam ne noonu lañu ñu war a dawe ci kaw tali bi loolu bu ñu sàmmonte ak moom foog naa ne lu baree bari dana dana wàññeeku ba ca topp ñu war a sàmmonte ak moom mooy defaraat oto yi euh, vérifier ko ba wate yi du am benn gàllankoor booy jóg sa oto gaari nga xul lu yàgg war ngaa xool say pneu ndax pneu yu baax na wala pneu yi baaxul war ngaa xool say frein ndax baax na wala baaxul war ngaa xool see lampe war ngaa xool say essuie ndax ci nawet lañu nekk war ngaa xool wati yëpp organe yëpp war nga ko xool boo xoolee organe yëpp ba lépp tegu ci aw yoon mu leer la ne ki yow mi woolu nga sa oto nga dem def sa visite technique ñu xoolal la ko ci loo xamante ni bi doo ca waxtaan doo ca maslaa ñu seet ko ba lépp loo xam ne xaj na des na ñu wan la ko ba nga mottali ko ba am sa visite technique bu mat suba sa wata mën nga ko teg ci kaw tali bi boo ko tegee ci kaw tali bi itam ngay ngay daw dànk ndax li am solo rek mooy agsi ci jàmm ni nga xam ne itam muy transporteur yi ni ngay dikki Touba di dem ak di ñëwaat diggante Touba ak Ndakaar diggante Touba ak Kaolack diggante Touba ak Ndar loolu itam ñu wàññi ko boo dikkee boo sonnee nga noppalu nga jël sa oto nga jox keneen mu aw la boo gëmmantoo ngeen nekk ñaari chauffeur ci oto yi bu kii bu kii dawalee ba sonn wala mu gëmmantu mu jëm mu jox morom ja morom ja man ko ko àggale ñu moytu si sart yi nga xam ne ñu ngi koy def ndax itam boo si sarte oto bi teg loo xam ne oto bi attanu ko loolu te mën naa mën naa mën naa jur jéye ndax pneu yi mën naa toj moo xam ne ngaa si sart ci ci nit ñi moo xam ne ngaa si sart ci ay bagage yoo xam ne sol nga koy bagage ba oto bi fees dell ba attunu ko ndax bu ne oto bi kat xaj na une tonne la war a mën a sëf nga def lu ma deux wala trois tonnes su boobaa aussi lu ci lu ci bawoo rek eh, day mel ne yow yaay responsable loola te nag li nga xam ne mooy jógee ci màggal gi jëm ci wote yi mën naa defar oto yi na ci ndax mën na juróom-ñetti milliards yoo xam ne bi ñu ko mujjee xayma noonu la toll woon kon loolu day mel ne euh, comme mi nga xam ne mi ngi ci bawoo di dugg ci transport bi loola foog naa ne buñ ko buñ ko seet na war nag woto bi am na ci àqam yoo xam ne war nañ ko ko cee jox ba oto bi baax chauffeur bi aussi am na ci àqam yoo war nañ ko ko cee jox ba tax du du firfiri du yàkkamti du du doxe nenn nii noonu bu ñu ko defee rek jàpp naa ne sunu borom mën nañoo dimbali ba ñu am ba ñu am li ñu bëgg ndax itam nag bari na jéey yoo xam day am waaye foofu dem rek. danga ko fekk loxob doomu aadama wala comportement doomu aadama wala jikkoy doomu aadama yoo xamante ni moo jur moo jur jéey ji kon nañu dimbale autorités yi ci fànn googu nañu dimbali force de l'ordre yi nga xam ne ñu ngi ci kaw télé bi ci fànn googu waaye surtout nañu dimbali sëriñ bi nga xam ne dafa woote tey ñaan ñëpp ñëw ci jàmm magal ci jàmm dellu ci jàmm ci accident yoo xam accident yu néew lay doon su munta ñàkk itam waaye accident yoo xamante ni su munta ñàkk itam nag bakkan du ci rot kenn ci lor loraange joo xamante ne bii dana gàllankoor nit ki li nga xam ne moo des ci giir dundam yéen waa Fadal nag ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm ndax seen taxawaay rafet na ndax li ngeen def itam day acte citoyen boo xamante ne bii ngir dimbali ak jàppale seen mbokk taalibe la ak jàppale aussi seen ay dëkkadoo ci réew mi ba tax ba e, accident yi wàññi liggéey bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ngeen ñëw ci jàmm